voilà jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp ci 24actu.com am nañu mbégte àndaat ak yéen euh, ñu toog koo xam ne nag kenn dootu ko présenté muy Youssou Dieng ñu ràññee ko lool ci euh, Sénégal waaye tey ji ñu euh, ñëw ndindi ci màggalu Kazu Rajab bi xam naa foofu la ñuy tàmbale Youssou ginnaaw bi ñu nuyoo ndax mënoon nañoo xam tey relation bi nga xam ne am nga ko ak fii ñu la fekk tey ci màggalu Kazu Rajab bi. waa jërëjëf Cheikh bi ñu ngi ziar di la nuyu. di nuyu Sénégal gépp à travers euh, vingt 24 actu vraiment di nuyu internautes yëpp di ñaanal ñëpp di sàkku ñaan ci ñëpp ci bis bi loolu moom yàlla defal na ko ko kenn réeréwu ko du ci réew mi du ci bitim réew fàllaw bi sa jox réew ba càmmiñal ma rema funte yaayu mbenn ak kër goo mën a bokk bu ñu nee sëñ fàllu rek tubaarkàlla dafa am looy yëg kon bu bésam jotee yàlla dogal ñu am kóllëre ak sëtam bu baax bii di sëñ Baara Mamor sëñ Mamor ko jur sëñ Fallou ko jur sëñ Fallou Xaadim Rasoul sëñ Baar di sama sëriñ di sama xarit tàkk jow burgeel joojo ko du yaa sini sa bii nga ndaw di koo xamante ni kuy mbokkam rek fekk nga ko fi dëgg la at yi bariwul waaye cëram bari na lool daaw ñu ñëwoon fii mu sanc tubaarkàll dalam bu am maanaa bi bëri barke ren ñu ñëwaat ah daaw géej sax ah daaw ba ren kon ñamewuñu xëyee ci réew mi tubaarkàll muy kastu rajab te duñ ñëw feddali kóllëre googu ndax euh, dafay suñu sëriñ di suñu xarit di suñu sëriñ ba pare def ñu nawle yombul kon yemalewuñ ko kenn looloo tax bu bis bi jotee duñ def lu dul ñëw bokk moom bés bi ah, di sàkku ñaan la di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam la mu yàgg fi lool ah, ndax lu mu fi gën a yàgg muy gën a neex ah tax na ba wuti wuñ dara manqué wuñu dara ah, dañ fi fekk bari na te yéen la la koy joxe ak cër boo xamante ni kenn xamul na mu toll ba tax na daal saa su ne ñu ngi ak moom. waaw sëñ Bara Mamor. mu mel ni ki waral bés bi tey eh, di sëriñ Fallou Mbacké bégloo na ku nekk. waaw sañ Fallou man mooy sama sëriñu yaay xam sëñ Fallou mooy Sénégal moom moo ko wax moo ne maay Sénégal ñu ne ko lu tax mu ne Bambaay sama baay Maodo di sama nijaay na mooy Sénégal. Euh, awa Bousso Mati Niang Mati Niang numbe daanu sànq mooy mbokki Sénégal tubaarkàlla mooy li ma la wax rek sëñ Fallou euh, ay mbiram biti la fanaan <laughs> kenn réerewu ko